fukkeelu at ak juróom ci nguuru tibeer sesaar fekk pons pilaat yilif diwaanu yude erod yilif diwaanu galile filip magam yilif diwaanu iture ak bu tarakonit te lisañaas yilif abilen te it anas ak kayif nekkoon sëriñ yu mag ya te jamono jooja la kàddug yàlla wàcc ci yaxya doomu sakariya ca màndiŋ ma yaxya daldi dugg àll bi wër dexu yordaan gépp di waare nii tuub leen seeni bakkaar ba noppi ma soob leen ci ndox ngir yàlla baal leen seeni bàkkaar loolu lañu bind ci téere wax yonent yàlla esayi naan am na baat buy xaaju ca màndiŋ ma ne xàll yoonu borom bi jibal leen fi muy jaar nañu sëkk xur yi maasale tund yeeg janj yi yoon yu dëng ñu jubanti leen yi ñagas ñu rataxal leen bu ko defee bépp mbindeef dina gis mucc gi yàlla tëral mboolo ma daan na ñëw ngir mu soob leen ci ndox yaxe daan na leen wax naan yéen ñi fees ak dangar mel ni ay co ku leen artu ngeen daw merum yàlla mi nar a wàcc leen nag ni ñu tuub seeni bàkkaar te bañ a nax seen bopp naan nun daal doomi Ibrahima lanu ndaxte maa ngi leen koy wax yàlla mën naa defal Ibrahima ay doom ci doj yii semeñ wi tiim na reeni garab yi garab nag gu meñul doom yu baax des na ko gor sànni ko ci safara si mbooloo ma laaj ne lan lanu war a def nag mu ne leen ku am ñaari mbubb nga jox menn mi ki amul ku am ñam itam nga bokk ko ak ki amul ay juutikat itam ñëw ca ya ngir mu sóob leen ci ndox ñu ne ko kilifa gi lu nu war def mu tontu leen ne laaj leen rekk lu jaadu ay xarekat laaj nañu ko ne li jëm ci ñun nag mu ne leen bu leen néewal doole kenn jël xaalisam ci kaw ay tëkku mbaa ci seede lu dul dëgg waaye doyloo leen li ñu leen di fey mbooloo maa ngiy xaar di séentoo ko laaj ci seen xel ndax Yaxya mooy almasi bi noonu Yaxya tontu leen ñoom ñépp ne man maa ngi leen di sóob ci ndox waaye kii ma ëpp kàttan dina ñëw te yeewuma tekki ay dàllam kooku dina leen sóob ci xel mu sell mi ak safara layoom mu ngi ci loxoom ngir jëri dàgg ja ba mu set pepp ma dina ko def ca sàqam waaye xatax ba dina ko lakk ci safara su dul fey mukk noonu Yaxya teg ca yeneen dénkaane yu bari di yégal nit ñi xabaar bu baax ba waaye Yaxya yedd na Erod boroom diwaanu Galile ndaxte dafa takkoon Erodiyaad jabaru magam te it boole woon na ci yeneen ñaawteef ba faf tëj Yaxya kaso noonu Yaxya sóob mbooloo mépp ci ndox sóobaale it Yeesu bi Yeesu di ñaan nag asamaan si daldi ubbiku noonu xel mu sell mi daldi wàcc ci moom yor jëmmu pitax te baat bu jóge asamaan jib ne yaa di sama doom ji ma bëgg ci yow laa ame bànneex bi yeesu di tàmbali liggéeyam amoon na lu wara tollu ci fanweeri at di doomu yusufa ci bëti nit ñi te yusufa mooy doomu eli mi doomu mataat mataat lewi mooy baayam lewi melki melki yanayi yanayi yusufa yusufa matakaas amos nayum esli nagayi nagayi maat matakaas semeyin yosek yoda yoda yowanan mooy baayam yowanan resa resa sorobabel kooku salasela ko jur salasel neeri neeri melki adi kosam elmadam er er yeesu eliyeser yorim mataat lewi simeyon yuda yusufa yonaam eliyakim eliyakim meleya meleya mena mena matata matata natan natan daawuda daawuda mooy doomu yese yese obed bowaas salmon nason nason aminadab aminadab admin arni esrom fares yuda yanqoba isaaxa ibrahima taara nakor seluk ragaaw falek eber sala sala kaynam mooy baayam kaynam arfaksad arfaksad seem seem nooyin nooyin lamek lamek matasula enok yared maleleel kaynam enos set set doomu aadama aadama doomu yàlla